non mais mais namoon naa leen ah mais xam nga dama fi jaar ci élection yi mais bi ma ñëwee ba dellu boobu ba tey damay nekk di xalaat l'accueil chaleureux, la joie, l'enthousiasme. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui ci weeru koor ci weextu ndogu mais namoon mais namoon et je suis heureux de revenir ici surtout ci waxtu bi nga xam ni sama xarit bi ma fi àndaloon deux mille vingt deux libéré nañ ko muy le président Ousmane Sonko. amul ku umpule sama xaritoo ak moom amul ku umpule taxawaay bu ma mës a am ci wetam. góor góor la te damay gore ba dee rek Mais je suis très, très, très ému par cette mobilisation. Kasumai Kep. Voilà. <laughs> mais mais Bignona vive. Kougisli, Khamni Bignona est en de vibrer. Et DJ devenu avancé, nous avons besoin. Le Sénégal a besoin d'avancer sur le plan économique. Nous avons besoin d'avancer sur le plan social. Nous avons besoin d'avancer en réglant le chômage. Nous avons besoin d'avancer en réglant l'agriculture et assurer la souveraineté alimentaire. Nous avons besoin d'avancer par l'industrialisation. Nous avons besoin d'avancer par le cadre de vie. Nous avons besoin d'avancer par l'architecture urbaine. Nous avons besoin d'avancer sur le plan diplomatique. Nous avons besoin d'avancer sur le plan sécuritaire. Et nous avons besoin de faire avancer Bildona dans toutes ses préoccupations. croyez-moi, Betchefal, président de la République, Inch'Allah, Bignona va avancer, tout le Sénégal va avancer. Les vieilles doléances, nous les connaissons, elles seront prises en charge. Nous avons en mémoire le port de Kafountine, Faterinko, en eau profonde. Nous avons en mémoire les usines qu'il faudrait aujourd'hui ici pour la transformation et la conservation des produits. Fatorito. La boucle de Niamon, les infrastructures routières à faire à ce niveau fàttewuñ ko lii may wax nag na ngeen ko enregistré parce que bu ngeen mën ko génne ni yaa fi waxoon lii nga xam ni lépp lu ma wax dama koy respecté j'ai un profond respect à ma parole j'ai un profond respect aux populations moo tax dañu naan nit ci kàddoom gor te kàddoom te xam ni gor ngeen ko séqal day respecté kàddoom di leen gërëm encore une fois ci mobilisation bi mais it di leen wan bulletin bi yéen a ko seen loxo mooy bulletin bu jaune bi am lu weex xam naa ni xàmme ngeen ko gis nga ni ngeen koy jàppee seen simple wax leen ma wax leen ma ku toj nen lan ngay fekk ci biir ñan couleur ngay fekk ci ku toj nen daa fekk jaune ak blanc bi ngeen xàmme ko parce que dama bëgg bu le 24 mars jotee bu ñu xëddee ba pare ñu dem voté ji massivement bu ko defee ngoon si ñu mën ndagoo ak nen bi fekk ba doyal ci bis bi gaa yi danoo war dem dana leen war bagaasal ñu dem xam nga def fukki ak ñaar naan da nekk ci continuité xam nga ni loolu du tekkiwul dara dem ñu indi changement qualitatif bu ko defee Sénégal jëm kanam bu ko defee ku nekk ci biir Sénégal gis sa bopp ci li nga xam ne ñoo ko bokk ak toutes les ressources yu ñu yàlla indil bu ko defee immigration clandestine bi du fi amati sunu jeunes yi duñu jël géej gi di dem ndaxte soxla na leen te fii la ñuy am fi liggéey teral fi seen i waajur teral fi seen bopp mën a contribuer au développement économique et social du pays je vous remercie